volet suus hashish peuf nek ay xeetu ñoll yo xamantene ni ndaw ñi eh, dañu koy faral di jëfëndiko jëfëndiko gogu nak la leen di jural moy taggo ak sen sago eh, ba tax ñu mën di def yenn ci ay xeetu ñaawteef eh, phénomène bi nak ñu gis ni fay gën di jël ampleur tax nak Diaspora News TV yebal ay ndaw fi ci diwaanu Grand Yoff ñu fas nak nag dugg ci biir askan wi dugg ci biir ndaw ñi waxtaan ak ñom ci conséquences yi nga xamante ne ni l'usage de ces stupéfiants euh, mën na ko indi ñu ànd ak suñu caméraman euh, dugg ci seen biir euh, ñu wax ñu lan lañu ñu xalaat ci phénomène bi. waaw li ngay laajte nii moom daanaka jamono ji foo dem na li ngay laajte moom jamono ji mun naa la foo dem am na fa. di ko nag yàlla ñu nattoowuñu ko. ba ñu koy def mais. amna ñay xarit yu koy def amna ñay anando yu koy def dañuy gis ño xamne dañ koy def particulièrement quoi parce que dañoo nekk ci endroit yi nga xamne lu mënul ñak la ñen ñi di def mais lu mënul su muntu wax bu mënul la wax moy ñun defu ko mais ñu ngi gis conséquence manam ñi koy def num leen di arriver ak num leen di def parce que bul dara dul dara tamit ñu ñëw ci cadre santé nit lu bokul sa yaram bokoy utiliser du coup fay feeñ quoi te nit pour man dara waru lu mëna jaral xam nga yak sa santé surtout nag nga nekk doomu baadoola sa loxo jotul sa ginnaaw malgré ko boo sibiroo sax pour nga dem dëgg tigga consultation faj sa bopp day métti kon boo nekk doomu baadoo doomu baadoola nga war a xam sa bopp di mooy tund ko xam nga yenn yi nga xam ne ëllëg si biir bu la indilee ay tawat xam nga fi ngay nekk sonal say parent xam nga yooyu noonu dañu war di ko bàyyi xel ndax tey bu nekkee yow mun a goo satisfaire say parents yenn besoin ngay dem di jël yenn xeetu drogue yi ba xëy en un jour nga tëdd feebar imagine toi nga wara dem hôpital faj bi wara yegg ci fo xamne yow say parents ñu baaw amana amunu moyen yoy nonu quoi comme bu dara du dara bo nek doom baado da nga war di bàyyi xel lu bëri sa bop xam nga du moytu yone xetu drogue yi bala ëllëg ci bir mu lay lor di la indi lay problème nga xamne tay bu la daré mëno faj sa bop quoi vraiment lool dal lu jara moytu la dal boy kay def tamit xam nga du coup da nga nan ni la moo tax ñuy def li parce que yang koy def amul lu benn njëriñ yang koy def chaque jour mu ngi lay yaq te lu su gëna graw ñoom boo koy utiliser maanaam dangay ngay sentir dafa am luy bari loo xam ne dafay wàññeeku si ñoom comme lu si jëm ay kersa bi nga doon am si nit yi da gis ni doo ko amati maanaam ni nga doon waaw ni nga doon focusé sa bopp sax mujj bi yow mën naa ne doo nekkati si ligne boobu ko parce que day yóbbu sa xel si ay yeneen dimension day yóbbu sa xel si ay yeneen fréquentation day yóbbu sa xel si leneen ak leneen ak leneen loo xam ne di nga xam ne booy bi maanaam bu tey bi ak bu démb bi wute na te xam nga yooyu noonu daal lu mot a bàyyi xel la daal waaw ñu moytu ko baax a baax a baax doomu daal day xam boppam quoi ñëpp la war sax mais surtout doomu baadoola waaw nañ xam suñu bopp bu baax quoi parce que am na yenn bëri yoo xam ne daf ñu war waaw jàpp nañu waruñu leen ñëw leen teg ay yeneen problème parce que yooyu noonu yëpp chaque jour ñu toog di wax day indi ay xama ay insuffisant rénal day indi ay problème mu rein day leneen ak leneen ak leneen leneen changeal benn benn doom baadoola boo xam ne sa yaay day xëy dem liggéey sa papa xëy leen ay problème mu rein ak lañ koy waxee fan lañ koy waxee di coup luñ dencoon la ñuy mujj jël faj la ko parce que xam nga deret bi la mënoo dem bàyyi leen ba pare yow da ngay xam da ngay waaw mun naa ne da ngay feree na famille bi quoi lu ñu waroon jël def ko si njaboot gi moom la ñu mujjee jël ubbe xam nga di ko def si yow te loolu war na mun a ñaax waaw booy nañ bàyyiwaat xel loolu bu baax a baax a baax a baax a ah, baax au delà des conséquences yi nga xamante ne nii dina ko indi ci wàllu wér-gu-yaram mhm. eh, dégg nañu euh, Malick di wax sànq ni euh, consommation yooyu xeetu drogue moom mooy tax nit di def loo xamante ne nii waru ko def gis nañu agression yi gis nañu viol yi gis nañu yenn xeetu ñaawteef yi nga xamante ne nii ñi koy jëfandikoo dañ koy faral di def waaw conséquences yi nag mooy loolu ni xam nga nit boo lisatul surtout nag drogue dafa nekk loo xam ne dafay gën a pousser nit ki si bëgg-bëggam bu nekkoon tey yow sa xel dafa nekk ci agressé amoo fitu dem defi ko il suffit que maanaam nga maanaam nga consommer drogue rek pour dem defi ko day yomb ko waa parce que heure boobu noonu t'es pas lucide àndaloog sa xel te drogue dafa nekk loo xam ne day pousser nit ki su lu jëm ci wàllum seytaane en général c'est très rare ngay gis nit di utiliser yenn xeetu drogue di def lu baax c'est très rare ngay gis nit am na ñoo xam ne nag mun nañuy utiliser drogue maanaam te doo ko xam si ñoom doo leen gis ñuy def lu bon mais du ñëpp à soixante-dix pour cent yenn xeetu drogue yi boo ko utiliser da lay pousser ngay def si loo xam ne du sa cër léegi après regret bi boo demee ba drogue bi wàcc si lay doog a ñëw heure boobu noonu nag foofu noonu nga war di waxtaan ak sa xel heure boobu noonu foofu noonu nga war di indiwaatee sa bopp mais bu nekkee tamit yow loolu li ngay bëgg di def drogue bi moo la koy mottali chaque jour mën naa ne saa yoo ko bëggee dem def rek foog nga jël drogue bi saa yoo ko bëggee dem def foog bu dee tey da nga bëgg agressé amoo fitu agressé du coup drogue bi da lay yokk doole pour nga agressé da nga koy dem defi ce bëgg-bëgg la moom te insécurité bu fi am tamit man loolu damay balaame poste de fi quoi muy lu jëm police avant gouvernement police baay fi quoi tay ñun bu ñu lu ñu mënuñu Sonko bi pour mais police baay fi mais du coup police bi na fi ne a mëna la ci de sécurité mais au contraire c'est pas la cas quoi peut-être ñom dañ ni ni mais. njëriñ bi daal ñun mun naa ne mun naa ne gisuñu ko quoi parce que mënuma comprendre pont boo xam ne depuis ñaata at mu ngi am agression ñu ngi fi rey ay nit barki démb rek lañ ci jógewaat rey nit ba suba boo moytu ñu reyaat fi nit ñoom ana seen njëriñ fii chaque jour ñu ngi ci pont bi fii di jàpp scooters yi di lekk seen 2000 3000 francs nu ñuy bàyyi xel ci scooters yi di lekk seen 2000 seen 3000 bu ñu ci jëloon ay mesures barrières yu mat sëkk fi toog 10 ans yoo xam ne doo fi dégg crime mais ñu ngi toog di xaar yor seen toor si fay ko di xaar borom moto bu ñoore ñu daw naaw sa kaw encaissé la buñ toogoon noonu du yootee noonu agresseurs yi fur am na mesure boo xam ne ñemeetuñ fi yëg di def yenn yi mais buñ fi toogee ba benn heure bi pare wàcc dem seen yoon booy heure boobu la ñëw monté parce que ñoom booy ñoo fi dëkk mais buñ toogoon ba fajar buñ fa jógee am ñeneen ñu leen relever boobaa booy duñ fi toogati waaw affaire loolu kese la quoi man insécurité bi daal dama jàpp war a gën a mën waa ñu ngi woo gouvernement bi gouvernement bi tamit dooleen leen ñoom quoi gën leen xam a renforcer jox leen matuwaay si war yëpp bu ko defee xam a ñoom ñu mën a taxaw sécurité bu baax a baax a baax mais poste de poste de police bi nekk fii daal na gën a bàyyi xelam si loolu quoi. soxna si gis na man mi ngay waxal nii man ci milieu laa juddoo mun naa ne ci milieu laa juddoo ci milieu laa yaroo mais ndimbalu sunu borom nimbalu sunu borom quoi ndax jàmbaar amul ku fi sunu borom jàppale rek moo fi am. ñun jaar nañ ci ay millions yi nga xam ne tey amaana bu ñu toogee fii bay dem bay raconter suñu vie dañ ciy delluwaat di sant yàlla suñu borom baax di si sant tamit suñuy waajur yi quoi ndax parfois ñoo ci doon mos a toog sama yaay ci bundu kër gi nii waxtaan quoi am sama yenn xarit di romb mu ne ma yow da ngaa am chance ma ne ko chance lan mu ne ma gis nga sa xarit yi ñu mel ni ma ne ko waaw amaana moom su veewul woon ci man comme nu mu waree jaayante wul ak man noonu laa doon mel ji parce que heure boobu xale laa woon xama xàmmeewu ma ràññeewu ma diiku xama mais moom dafa mës a teg bakkanam ci da ngay baax par force ndax moom nay xarit doo xam ne man sa su leen xoolee dama leen di ñëwee ci cadre jantal ci cadre taxaw bëgg seen bopp mais drogue tey da leen mele ci benn vie boo xam ne boo leen gisee da leen di yërëm gens da koy def naan sàngara bu bëri da koy def tux yàmbaa bu bëri da koy def euh, suus da koy def leneen ak leneen ak leneen lépp loo xam ne yaa ngi ci excité rek mun na la yàq te xeetu doro yooyu noonu ngay jël boo nee ba abusé aussi forcément da lay yàq parce que te lay dikkee ay facettes yoo xam ne balaa ngaa comprendre fekk mu ngi lay commencé commencé ruiner fu ñu siy bëgg demee bay génn nag fekk ëpp na la doole c'est ça la problème. dam samay xarit doo xam ne barki alxuraani kenn su mu leen musaana xool ni sama bopp laa gis parce que dañoo jantale woon kuul set foo leen fekk dañoo bëgg seen bopp. ñu ngi ko doon def di bëgg seen bopp tey mais ba leen affaire yu commencé ëpp doole dañoo dem ba tal seen bopp fa la lay commencé di yàq nànk par nànk ngay génn di mandé accident di la dal ngay génn di mandé di def leneen ak leneen ak leneen ay problème di la si dal ñu lay jàpp di la tëcc di la dóor tey loxo bu damm suba R4 bu teppeeku gannaaw suba benn bëñ bu wàcc fur et à mesure avec le temps da ngay dem ba doo xamante lu lay nduróo drogue bi foofu la lay poussé foofu la lay yóbbu aventure bi du la chaque jour que jëfee yaa ngi du la yóbbu si dara lu baax même tey bu dee yaa ngi drogué wu jëloo alalu jàmbur sàccoo defoo dara sax di nga xool ci boobu seetu xam ne drogue am na lu mu def si yow. moo tax drogue daal moo nekk loo xam ne ak drogue bu mu munti doon baaxul ak drogue bu doona cigarette sax drogue la ndax boo koy tox bu yàgg nga xool sa boobu seetu gis sa bëñee ngi yàqu gis sa kanam bi mu ngi def ay yeneen ak yeneen ak yeneen ak kon même bu la jëloowu alalu jàmbur sàccaloowu la di nga xool si boobu seetu xam ne drogue am na lu mu joué ci sa carrière kon daal buñ ko mënee éviter nañ ko bu buñ ko mënee moytu nañ ko moytu waaw comme sàng nu mu koy waxee dama koy waxaat doomu baadoola daal na xam boppam ñun doomu baadoola yi nañuy bañ ëllëg ci biir xama yenn feebar yi dal ñu xama te fekk ñoo ko yóbbee suñu bopp te suñu loxo jotul suñu ginnaaw ñuy mujj obligé di sonal suñuy parent yi seen dërëm ak ñaar dërëm ñu dajal woon mujj ñëw di ko fajee quoi nañ moytu loolu noonu bu baax a baax baax a baax. Eh, mbirum suus moom boo ma ciy laaj moom dama siy sawar bu baax parce que nekk na affaire boo xamante ne baaxul ci réew mi yàkk na xale yu bëri yàq na xale yi ndaw yi xale yi ndaw yoo xamante 2000 un yooyu yëpp yàq na leen xale yoo xam ne sax ñu ngi doog a juddu dañuy laal sax ay affaire suus man su ma sañoon suus bi moom na koo gouvernement bi ñu wax ci génnee ko ci fii ba mu set parce que xam naa ne bu naree continuer nii dina yàq xale yi bëree bëree bëri. parent yi nañu gëstu seen seen doom yi bu baax a baax ñu xool fu ñuy dugg ak fu ñuy génn surtout bu ñu dem surtout euh, école bi sax. surtout école bi lepp fofu lañ koy defee dangay yaakaar ne ñuy dem pour jàngi fekkee jang ñu ñu ngi def lo xamanteni loolu mom réew mi moom bëgguñu ko suma sañon parents délé parents yi ñu wax ci bu baaxa baaxa ba ñu xol si gëssu si ndax loolu mo gëna am importance wa lu bari lu bari sax lu bari kay lu bari mën na galankor lu bari sax ndax drogue bi mom gaañ kii na fi ñu bëri ñoo xamante ne kenn mënul comprendre da gis léegi-léegi ku xëcc drogue wala tux yàmba ñëw doo xam ban melokaan la nekk daal du nekk sax ak sagom parce que bëri na trop da ngay gis ñuy xëcc seen drogue léegi da ngay gis nit romb sax sa buntu kër sax ñëw agressé la wala def la leneen du xam sax lan moo tax parce que lu ñuy xëcc la lu ñuy xëcc moo baax drogue rey na fi ñu bëri man su ma sañoon drogue boobu noonu gouvernement bi na ci gëstu bu baax a baax a baax mu bàyyi ci xel. drogue yooyu noonu tey jii nii mun naa ne daa yàq jeunesse bi quoi dafa yàq jeunesse bi waaw parce que jeunes yi ñu ngi koy utiliser mais bu ñu koy utiliser après du ñu ànd ak seen sago du ñu ànd ak seen sago quoi xama waaw après mooy waral tey jii nii ñuy dugg si loo xamante ni si naka sudul noonu. te boo yi dañ koy jël ba pare après maanaam dooruñu ànd ak seen conscience tranquille waaw mooy waral ñuy def yéen nii quoi.

bëri na ay dorog yoo xamante ne ñu ngi dugg si fii si si dëkk bi du jeex du jeex quoi te xam rek loolu noonu maanaam yàq na dëkk bi quoi yàq na dëkk bi gis nga booy dañ koy jël naan ay xama dañuy zemb rek dañuy mbool rek xam nga waaw ba si sax ay jigéen te jigéen mooy jur doom quoi jigéen maanaam war na mun a éviter yenn yi nii jigéen war na mun a éviter yenn yi koo xamante ni yow maanaam yow yow yow yow ëllëg da nga war a éduquer war a yar pour moom war nga mun a éviter ay volet ay suus di ko jël xam nga di dugg si di n'importe quoi waaw maanaam xam rek nañ defaraat jikko yi quoi jikko yi la ñu war a defaraat. lay dégg sànq ci sa biir kàddu nga wax ni euh, buñ ko jëlee dañuy tàggoog seen sago moom mooy tax ñuy def yenn xeetu euh, def def yi. waaw nga dikkaat ci jëfandikoo drogue mën na tax euh, nit di ko def. waaw mun naa si dikkaat maanaam ñaawteef yooyu noonu tey maanaam agression yi yi ngay gis nii yëpp maanaam. dorog yee ko waral moo ko waral parce que am na boo yoo xamante ni ñoom suñ jëlul loolu noonu amuñu fitu affronte nit agressé ko amuñu fit boobu noonu amuñu fit boobu de mais dañuy jël dorog yooyu noonu après moo leen permettre ñoom agressé nit ñun tey jii nii suñ baay bu ñu fii nii ah, bëri na ñoo xamante ni maanaam du du ñaari yoon ñu fiy gis cas yooyu noonu ñu fiy gis cas yooyu noonu ah, ñuy agressé nit yi mais loolu lu koy waral mooy maanaam li ñuy jëfandikoo kase la bilaay li ñuy jëfandikoo moom moo baaxul quoi li ñuy jëfandikoo moo baaxul moo waral agression yooyu noonu xam nga mooy waral tamit leneen ak leneen ak leneen bëri na ay ndaw yoo xamante ne tey jii nii mun naa ne maanaam sànku nañ quoi ndax tey jii maanaam xeetu drogue yooyu noonu ñuy utiliser waaw loolu day yàq nit quoi nit moom xama rek loolu loo ko mun a éviter rek éviter ko sûrement nga nekk ndaw nekk si benn yoon di ut nii ñoom ñoo féete ci nguur euh, tey euh, ban taxawaay la waajur war am euh, justement pour taxaw doomam bu baax baax mën ko surveiller ba du mën a dugg ci yenn xeetu mbir yi wala ba du mën a dugg wala am yenn fréquentation waaw côté boobu tamit maanaam jur yi tamit ñoom si benn côté am nañ si maanaam tey part de responsabilité am nañ ko si parce que am na am na am na am na am na waajur yoo xamante ni ñoom xam nañ bu baax ni seen doom. day yëngatu si affaire yooyu noonu dañ koy xam de mais ñoom maanaam ñoom xam la la ñuy xool par exemple tey seen doom moom na dem uti ji ñëw indil leen rek ñoom ñu jël mais war nga mun a xool sa doom si yan anam lay amee waaw si yan anam lay amee quoi ba xam anam yi muy amee jaar na yoon wala jaarul yoon loolu noonu maanaam waajur bu nekk war na ko war a mun a xool mais ñoom seen yoon da gis ñoo xamante ne yow tey sa doom war na mun a nekk si loo xamante ne du yoon sax nga xamal ko ne carrément si li nga nekk nii du yoon. waaw nga teg ko si si raay na ko carrément génnal si lii nekkal si lii loolu moom mooy dëgg quoi loolu moom mooy dëgg mais ñoom pa parents yi ñoom ñoom seen seen doom maanaam ñoom nu mu amee rek baax na quoi te loolu sans ne se Grand yof buñ ko waxé dañuy faral di wax ni amul sécurité insécurité bi dafa bari fi na luñu fi agresser ay nit bari na itam luñu fi fat, faat ay nit naka ngeen di tundé yeen ak ñi nga xamante ni ñom ñoy euh, def mbir yu ni mel. waaw loolu noonu soxna si mom ñu ci dund lu metti fi ni té lool état bi tamit ñu ngi ñaan quoi ñu ci mëne jappalé mu jappalé ñu ci wax deug neex ko de sécurité bi quoi parce que fi mom insécurité totale la insécurité totale parce que fi yàgg nañu fi rey nit xam nga waaw du benn yoon du ñaar yoon tamit maanaam yàgg nañ fi xam agressé nit comprendre nga du benn yoon du ñaar yoon mais gis nga Grand fii nii gars yi wax Grand Yoff mais Grand Yoff ñi fiy ñëw di def ñëpp soo xoolee maanaam dëkkuñu Grand Yoff mais gars yi da ñoom dañ ñoom ñoom ñoom maanaam dañuy yàq deru Grand Yoff quoi yàq deru Grand waaw te côté boobu noonu moom ah, wax dëgg neex yàlla moom ah, état bi war nañu si mën a jàppale ko parce que sécurité bi fii doyul fii dem na ko ba nga xamante ni sax gars yi bu ñuy dox guddi bi dañuy dox guddi sax mais yow tu te sens que ni yow nekkoo si sécurité nekkoo si sécurité waa billaay wallaay insécurité totale la du beneen du ñaar yoon suñuy sœurs yi ak suñuy yaay booy yi ñuy xëy fajar bi dañ leen kar fii di leen agressé di leen kar fii di leen agressé waaw du benn du ñaar yoon ñuy gis circonstances yooyu noonu te loolu gars yi bi war nañu si mun a jàppale quoi lu ñu si jàppale tamit ñu jël yokk sécurité bi xam nga maanaam tey gendarme yi nga xamante ne dañuy tëdd si camp yi maanaam tey lu ñu fa nekkee mooy maanaam di lekk ak tëdd war na leen mun a génnee ah, ñoom ñu monter si dëkk bi di xool sécurité dëkk bi di def ay patrouille quoi patrouille di def patrouille loolu moom mooy yoon xool sécurité dëkk bi. ndaw ñi ah, bari ci ñoo xamante ne ni dañuy jëfandikoo yenn xeetu drogue yi. bu ñu ko jëlee tàggoo ak seen sago mu mën leen jural ay indil leen ay jafe-jafe yu metti wala mën a euh, tax ñuy def yenn yoo xamante ne ni euh, méngoowul ak yoon lan mooy sa jàngat ci situation boobu ndax. lu am la lu am la lu ñuy gis rek fii nii affaire yi moom pour wax dëgg amul na ban barki démb rek la am fii nii benn corps euh, bu ñu fekk fii nii si pont bi fii mu doon ay affaire yoo xamante ni rafetlu wuñ ko quoi. waaw benn. bu ñu fekk fii nii si si pont bi fii. benn cadavre si canal bi fii nii. xam mu doon ay affaire yoo xam ne rafetlu wuñ ko parce que ñëpp bañ bañ gisee loolu lu ñu njëkkee xalaat mooy sûrement crime la parce que booy dañuy faral di agressé si pont bi et tout waaw moo tax affaire dafa doon loo xam ne rafetlu wuñ ko quoi waaw suusi yi ak affaire yi day def loo booy li nga xamante ne tey jii nii dañ duñ ànd ak seen sago quoi duñu ànd ak seen sago ñëw sa moromu yaay sax boo ko dogalee si mbedd bi sax nga bej ko. te tey ku ko defoon sa yaay du la neex am na yi nga xamante ne maanaam jeune warul nekk si yooyu noonu quoi ñun ñëpp mun nañ ko def pourtant kii am na doole bi am naa doole bi mun nañ def kon ñoom di suus di ñëw agressé fii mais duñ ko def tey suñu xoolee suñu yaay rek am na loo xam ne jomm nañu quoi maanaam live bi da gëm sa bopp ñuy liggéey fii cinq heures du matin ngay yeew ay jigéen da ngay gis ñuy rey seen bopp di dangi-dangi pourquoi pas góor yàlla nga toll sa digg jamono toll mel nu la neex da nga war a dem joobi ji mais am na yoo xamante ni rafetul quoi waaw ah, rafetul vraiment si banlieue bi ni xam nga lu ñuy sikkal nii ak yooyu noonu dafa métti quoi imagine tey da ngay dëkk grand sax boo demee fenn nit ñi di la bàyyee xel wala yooyu noonu waaw loolu moom du yoon quoi. waaw ak yenn xeetu drogue yi. Hmm. Ah, tey lan nga jàpp ni moom la mën a euh, jural ki nga xamante ni moo ko jëfandikoo. ah bëri na dèjà problème mu santé problème mu santé vraiment xeetu drogue yi suba mun na la andil affaire yu bëri waaw ah, dafa doon li nga xamante ne moom boo fa dëgg yàlla baaxul. problème mu santé ba pare déjà doo nekk ak sa sago quoi li ngay def et waa loolu moom vraiment mais nag naa la wax lu important nag suusi ak volet yi nag xaaj bi yëpp banlieue bi la lañ jàpp affaire du banlieue bi de booy almadie booy booy yu gën a taxaw financièrement ñoo dax utiliser drogue banlieue bi ñun am na loo xamante ne ñun jom nañ ñun si métit lañ dëkk yoruñu gars yi fii nii nii nii nii xamuñu yenn xeetu drogue yi de booy wes wes yi drogue yu ñu xam billaahi gars yi fii banlieue bi xamuñu ko wax bi moo fi nekk nag dëgg la banlieue bi tamit waaw am na benn role quoi peut-être si waaw si côté saafara indien bi quoi mais maanaam côté yenn xeetu drogue nii non sérieusement nag gars yi nga xamante ni ñooy booy wes-wes yi ñoom ñoo koy dund ñoom ñoo koy yor ñooy tëju si appartement yi mooy loolu vraiment xale yi jigéen ñi sax léegi dañuy suus ba fa nga xamee ne Sénégal kon yàqu na waaw lépp suus yaa ma gën a xam banlieue bi lañ yeb rek tamit dëgg la nag man faraluma banlieue bi quoi jeune la et que maa ngi gis suy daw si banlieue bi quoi mais affaire bi du banlieue bi kese waaw affaire amna fenen tam fu mu nekk benen milieu bu mu nekk. waaw alors euh, responsabilité fam fan la responsabilité ah vraiment nak état bi surtout lay njëkk a jox toor boobu noonu quoi parce que affaire d'après man nak damay wax deug quoi duma voler mais d'après voler yi Gambie lay jugee ay yoy non gars war nañ mëna gëna gën a xoolaat quoi. Mm. nu drogue di duggé si réew mi dañ ko wara xolat bu baax wa parce que dafa yomb quoi di juggé fenen di ñëw yombé gambi ñëw fi ni di fi jar xoma ñaata man duma sous carte wax wafa deug yalla quoi wa mais dafa lool war nañ ci war état bi war nañ ci wat bu baax wa vraiment Euh, bon, ça me moi, je dirais d'abord, euh, c'est très dommage pour la, pour la jeunesse, parce que en fait comme nous ñu euh, waxee euh, da ngay ñam sa morom ñamal la rek nga nek ci quoi parce que une fois nga dugg pour nga génn mo gëna jafé donc euh, drogue quand même yàlla mais quand même pour cette jeunesse là vraiment moi je dis souvent c'est les parents qui ont démissionné quoi bo parents yi ñoo ñoo ñoo démissionné duñu surveiller sen doom duñu xam sen doom yi ci lan lañu nek et puis euh, metti na torop quoi metti na torop parce que surtout en banlieue bo xolé le phénomène phénomène bi metti na torop torop torop torop quartier bo xol ci biir Dakar manam les quartiers la banlieue xalé yépp dañu utiliser drogue té lolu quand même état bi war na ci mëna a ñu xol exactement nan lañu mëna régler affaire bo parce que c'est c'est un phénomène difficile manam ñi ñu leen di jox affaire bi fu muy jógee ba egg ci jeune bi traçabilité bo war nañ ko mëna xol ñu xam exactement nan lañ koy couper le mal à la à la racine quoi en tout cas metti na metti na metti na quoi da ngay gis benn bu ndaw bo xamante vraiment euh wara dimbalé yaayam wara dimbalé papam mais nga xool ko mu nek dans un état bo xamantene vraiment da nga koy yeureum loolu vraiment c'est triste et, et vraiment triste pour l'avenir de la jeunesse quoi. alors tey euh, euh, lan mooy conséquence yi nga xamante ne ni euh, mën na tal kii di jëfandikoo drogue wala xeetu ñoom yu ni mel. bon euh, duma spécialiste quand même dans ce domaine mais mun naa ne dépendance bi parce que boo amee dépendance drogue mooy maanaam tu es prêt même à à tuer à voler. Euh, à faire n'importe quel mal pour avoir quand même sa dose bobo. donc euh, faut la mun parce que conséquence bi métti na torop torop torop torop comme ni ma waxee tout à l'heure euh, xalé yi metti na torop da ngay xalé bo xamantene wara jappalé war a yaayam wara a relève de la maison mu utiliser ay stupéfiants lu melni drogue lu melni voler, lu melni yenen ak yenen bo xolé c'est c'est vraiment déplorable quoi conséquence bi moy vraiment moy xalé yi violence lay indi quoi parce que violence bu bëri euh, dépendance moy indi lolou quoi. Dakar wala jaar soit par les frontières wala jaar ci gal yooyu yëpp quand même autorité. war nañ ci gëna yok vigilance pour euh, épargner quand même euh, notre jeunesse pour protéger sunu jeunesse bi quoi surtout ça quoi par état bi mo ci war jog amul kenen ku ci mëna jog état bi rek mo ci mën et puis comme nous ñu ko aussi nit ñi tamet am ben phénomène bo xamante ne comme disait le président de la République Bassir Diomaye Faye le phénomène yolé waaye il faut ñu yoole ni ñi parce que da ngeen ci benn quartier yi koo xamante ne day jaay yamba nga nekk ngeen nekk ay voisins mu nekk juste à côté de chez toi nga xam ne day jaay yamba mais yooyu nañ ko wax policiers yi la fene moon yoole moo war am mu jeex. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi tudd Cheikh Ismaïla Koli man menuisier laay yëngu ci menuiserie laay yëngatu waaw. alors Cheikh la dañu gis ni euh, guddi yi ñu toll xale yi euh, wala bokk ndaw ñi lu ci bëri ci jeunesse bi dañuy jëfandikoo ay stupéfiants ay produits yoo xamante ne nii buñ ko jëfandikoo daf leen di tàkkale ak seen sago yenn ci ay xeetu drogue yu ci mel ni volet suus pëche ak yooyu lan mooy sa jàngat ci situation boobu. waaw loolu lu ma ci mën a wax la ci lu gàtt mooy xam nga xeet dafa nekk xeetu drogue boo xam ne. xëy na nit ki bu ko jëlee dina dem ba def yenn délire yoo xam ne xëy na du ko mën a arranger fii ci ci ci ci ci ci nekkin bu muy nekkee waaw man loolu daal lu ma ciy xalaat mooy su ma sañoon bu fekkente ne mën nañ delluwaat yaraat xale yi ci biir kër yi man daal loolu moo may gënal parce que xale yi le fait que ñiy génn am benn benn genre nu ma ko mën a tuddee benn genre idée dem toog ci mbedd bi na am ay ñoo xam ne dañoo nekk ci mbedd mi mun nañ leen a yàq donc ñooñu buñ leen mënee delloowaat seen biir kër yi ñu yar leen ñi nga xam ne amuñu métier ñu dem jàngi métier ñi ci war a dem jàngi ñu war a dem jàngi xale daal je crois balaa muy dem nekk ci mbedd bi rek am na leneen lu mu lu mu lu ko war loo xam ne xëy na bu nekkoon ci biir kër gi ñu koy digal dama def lii loolu yëpp du ko ci fekk. waaw parents yi tamit euh, am nañ ci seen wàll parce que xale moom wax dëgg yàlla xale rek la. yar yar la laaj boo ko yarulee ci biir kër gi bu génnee ci mbedd bi mbedd bi bu ko yarul rek mbedd bi da koy yàq waaw donc parents yi nañu gën a jël seen motuwaay seen diggante ak seeni doom parce que dafa nekk loo xam ne wareef la sa diggante ak sa doom sa doom boo ko yoree nga yar ko yar boo xam ne bu ëllëgee dina la mën a njëriñ mais boo ko bàyyee bu demee génnee ci biti bu yàqoo da lay ñëw loraat yow mi di yow mii di waajuram Euh, waaw nguur moom xam nga daanaka dafa nekk benn idée boo xam ne xëy na ñoom ci deuxième moment la ñuy ñëw man su ma sañoon parents yi d'abord ba pare ñu doog a ñëw ci nguur nguur tamit am na ci wàll parce que la fait que bàyyi ñiy jaay drogue yi war nañu gën a mobiliser wu gën a defarwaat pour mën a génnee loolu ci ci diggante xale yi ak ak ak ak euh, produit boobu ñuy utiliser xam naa ne ñoom bu ñu taxawee jël seen matuwaay liggéey seen liggéey nu mu waree xëy na dina gën a wàññeeku de telle sorte que parents yi tamit def seen liggéey comme ni ma ko njëkkee wax rek parce que parent tamit moom pour man premier obstacle bo xam ne mom na moom bu taxawee euh, aar njabootam yar njabootam ba yenn mu bañ ko ci fekk bu boobaa nguur xëy na lu mu mottali ci diggante boobu moo xam naa warul bari ci sama xalaat bu gàtt ñoko ko ñoko ñoo ko euh, gis nañu waaye itam téwlu nañu témoignage yi nga xamante ni ndaw ñi ñu jot dajel fi ci Grand Yoff jot nañu ko def euh, ci euh, ñoll yi nga xamante ne ni seen ay morom dañu koy jëfandikoo waaye nag seetlu bi ben la moy ke ni lenn rek la leen mëna a jural muy ay conséquences yo xamante ni yu néfaste la non seulement dina dégrader sen santé sen walu wérgu yaram waaye itam mëna na pousse ñuy ñuy def loo xamante ne ni euh, dafay euh, rek dal di euh, jéggi yoon wala boog ñu def loo xamante ne ni ginnaaw bu ñu retrouver seen lucidité dañu koy rek dal di rëccu tax nag ñuy sàkku ci parents yi naka noonu ci nguur gi mu jël ay mesures ci lu ni mel ndax kat mi ngi ay yàq jeunesse bi lii la leen indiloon tey fii ci quartier Grand Yoff dañ leen di jox di daje yeneeni jamono ci beneen quartier ak beneen thème jaa ngeen jëf